nuy naa ñëpp xel a ngay waaj a dal tey ci dimanche bi li dalal sunu xel yi mooy bi gaa ñi defee test laa la wax cent quatre personnes yi nga xamante ni ñoom la ñu jël di def ñoom test laa la wax yow eh, waay la cent quatre personnes ubbil yéen bi di ma ngay fësal ak di xam le ni ñaar dong la wax ñoo ci positif eh, waaye ndaw sàmb ko mbi mi ku daan am quinze tey nga am ñaar yàlla bu nu cat topp laa la wax eh, waaye ndaw sàmba ba tey ubbil yéen kaay bi ma ngay fësal ak di xam le ni ñoom waa Sénégal wéer la na tey ji yi ci dimanche bi lu toll ci dix-neuf personnes ëpp law ñaan fukk yi manqué benn ah. bu ci ca dugguwaay kon nag yéen kaay bii di Thiès Info ba tey ma ngay fësal ak di xam ne ni fi mu toll ni Sénégal cent six personnes la ñu dese yoo xamante ni am nañ feebaru jàngoro bu bon bi mbas mi mbas ma la waay ci yoo ci xarañteefuñ ak njàmbaaru ñi nga xamante ni ñooy médecin yi laa la wax eh, waaye musiba bi di musiba maama kumba laa la moom coronavirus moom coronavirus moom covid bi moom mbas mi moom musiba li moo jaaxal ñëpp laa la wax ay eh, waaye ndaw Samba médecin yi fañ nañ ci lu toll ci cent soixante onze eh, ay ko ma gën gëm laa la wax kontaan naa ci ñoom de tàccu leen leen nag jot na de ah wala ñu bàyyi ba ca kanam aha xel dal na ne xel dal na ne waaye ba tey ñun askan sunu gaal ba nu duggee leeral la mu leeral fësal te wax ni nag ginnaaw Thiès info information yi mu joxe laa la wax ñun luñ ca gën a la wax lanu ca a tiital du leen lu transmission communautaire bi mbas ma la transmission communautaire woowul ma transmission communautaire ndax nombre bi laa la lu ñu am ñaar ñaar ñaar benn ba laa la wax lijjanti ba ni poulet nekkub transmission communautaire cim ak yàlla li tax ñu waaru ñu laa la wax yéemu te jaaxle mooy benn transmission communautaire bii am laa la wax ah kenn ko ko wàll mooy yéen loola ma yéem kenn daa xam ndax wàlle la comme déet <laughs> gën naa yéeme a tax na ba tax na kon loolu daal mooy ennemi numéro un du covid 19 bu gars yi laa wax moo jaaxal ñëpp yo yo dund ba ñëw na de dund ba cent quarante mille tonnes yi laa la wax cent trente mille tonnes yi dund ba laa la wax ñëw na waaye nag ëpp biir yéene leeral ba moom la mu fësal te xam la ko ci dund boo bii <laughs> moom leeral la mu ci fësal te xam la ko ci mooy nag ñaari phase dañu koy def eh, waaye nag Samba déglu ma wax la première phase ba laa la wax waaw séddale ba ñaari phase lay doon waaw première phase ba mooy waaxu nag yët ko ñi nga xamante ñoom ñooy militaires laa la wax yóbbu ko ci camp militaire yi ñoom ñoom camp militaire yooyu yee daal di koy jël nag soog koo indi ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy néew gi doole yi na leer na leer na leer nañ ba mel ni bëccëg bii laa la wax waxal naa ko dinaa boroomi étage moomuñu ko de déel ñi nga xamante dinoo am ba géeja laa la wax way no sàmb buñ tàllaloon seen loxo ko banque laa la wax te bàyyi ko gi doole yi moo gën a wóor ñu de man daal ba tey yéemooti naa a naa jaaxle la nga xamante ni moom laa gis ceg Tambacounda neexuma benn yoon laa la wax way no samba ab imaam bu nu jàpp laa a wax imaam la tax ñu jàpp ko laa la wax dafa bokkul ci ñi nga xamante ni dañuy nodd ba noppi naan ku nekk na nga sa kër ba jamono neex déet lool kat ci noddu géej gi lañ ko naan dégg ba tax na nag moom laa la wax ak ñeenti nit lañu jàpp laa la wax vers vingt wa waaw waaw en plein couvre-feu ay imam ay loo gëm gëm gëm gëm gëm mën ngaa toog sa kër rek Sénégal moom ñëpp gëm nga ni ma ñu dem moo gën a wóox la nga xamante ni moom laa gis te leeral loolu rek waaye noonu sama li lu mu doon bul jooy bul jooy waxa rek leeral nee na ma ndekk de transmission communautaire bi ñuy wax ak laam-laamee laa la wax ëpp la waaja Touba la dëkk nga ni ma ay waay wax nga ñetti fan waaye Touba mbir ma jeexoon na fa affaire ba jeexoon na fa de. man de commerçant yi jaaxal na ma la wax laaw loo may yi commerçant mbas ma la man ndax waa jooju eh, tax ñuy yóbbu vingt sept personnes laa la wax en quarantaine laa wax ca nga xam ne mooy ca Touba ah, waaja commerçant la marché Ocass lay liggéeyee <laughs> am na cinquante lu ci am ba des daal moom mi nga xamante ni moo di xalif général bi di Serigne Mountakha Bachir Mbacké yàlla na fi yàgg lool te wér yëkkati na ci ay kàddu laa la wax. jaaralee ko ci ki nga ni moo di porte parole yoonu murit di Serigne moom ci jëmmi boppam Serigne Mountakha dëkkoon naa digal askanu sunu gaal laa la wax ñu wàccee kaamil laata mbir mbas mi di ñëw waaye gi ginnaaw bi mbas mi ñëwee yëkkati na somb takkoo takkoo takk lu toll ci deux cent millions laa ak wax jox ko sunu gaal fi mu toll nii nag ci li nga xamante ni moom la leen di woo mooy solidarité dimbalante ñi am nañ dimbali ñu amut laay laay màkke yaa baax. Eh, eh, eh, kon nag nañu daal di. xalaat bu baax a baax a baax a baax a baax a baax confinement total alors bu fekkee transmission communautaire daal lànk ni di jóg ci askanu sunu gaal. confinement total a am de bu wattu mu am nga ma maa la. waay ubbi lii kaay bi di leeral ba tey di fësal ak di xam le ni xoo ma nga lax dina amam déetu waaye li nga xamante ni moom fi mu toll nii am na laa la wax fës te bari lool fa la nga xam ne mooy ca marché Bignona marché bu Ndionaaba la fa am te bëri fa lool moo di yàpp mbaam laa la wax eh, waaye ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy jaaykati yàpp mbaam yi li leen yéem te jaaxal leen mooy yàpp mbaam bari na fa de bari na fa de lool lool lool xas la fa de waaye nag lii seen problème mooy gisuñu benn yoon client yi ana client yi ana client yi war a jënd laa la wax comme eh waay ba tey ci xeex covid 19 bi laa la wax déglu la sans limite wax te amu ci benn limite laa la wax Macky Sall ci jëmmi joxe na cinquante millions eh waay sa vie de foofa la ko yóbbu ba tey la présidence daal la wax deux cent millions le ministre des finances et du budget cent quarante quatre virgule six millions eh waaye la samba le ministre de la justice dix virgule neuf millions l'assemblée nag laa la wax l'assemblée foofa ca député cinquante millions de francs CFA ministre yi gis nga bi participer li ñu am ñaata la wax ci soixante millions de francs CFA liñ naan nag lu waay joxe baax na lu waay joxe baax na tax ba Amadou Diallo mii laa la la joxe deux mille francs Sall moo gën ñi ko def. balaa ñoo tàggu nag ñu xamal leen ni leen nag fi mu toll nii monde bi laa la wax ah ah romb na cent mille morts de la ilaha illallah. waaye nag ña nga xamante ni ñoo ci gën a sonn mooy les États-Unis d'Amérique fi mu toll nii tembe kay ñoom ñoo gën a sonn fi mu toll. ba tey bi di fësal ak di xam le ni am naa benn sénégalais bu am vingt ans laa la wax bu tuddoo ci turu Baara Samb moom Baara Samb ma nga faatoo laa la wax fële ci États-Unis ah waaw waaw lu ko rey corona déedéet corona reyu ko de ab bal lan ko koor laa wax balu fital mu ni xëpp ni xëpp fi mu toll nii ah may wax ak yow laa la wax xamaguñu benn yoon la tax nag waaj a tiire ko bal waaye daal bu ñu sukkandikoo ci horizon sans frontière laa wax ma ngay wax ca RFM ni waa ab balu fital lañ ko nuy tell mu ni këpp sëy latir bu baaxee rek bësal clavier ñu jaageen coof tey Valdamel dikk fas yéene waxtaanee ak yéen ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy nekk ci leneen loo xamante ni lu leen neex la ci jamono ji askanu sunu gaal gi yëpp àndee marché booloo daal di tiit jaaxle ndax li nga xam ne mooy mbas mi la musiba bii di Covid 19. mën nañ koo tàmbalee ci ki nga xamante ni mi ngi woy ci turu Lili Dior moom Lili Dior nag nekkul benn yoon ci biim réew di askanu sunu gaal ma nga nekk ca bitim réew ca réewum tugal waaye moom li nga xamante ni noonu lay def du leen lu dul bàyyi rek. ba mu guddi lool ci jamono jamonoy confinement bi li moom li li jox daal di jël mboole seen ay abonnement yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci Instagram bi ni leen kaay leen ñu pelloo moom sax bu fekkoonte ni day waxtaan ak ñoom rek ñu mën a wax waaye la nga xamante ni moom lay def ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ñay visiter compte am boobee mooy ay vidéo yu doy waar moom li li loolee lay def yooyu les vidéo nga xamante ni li li joor mi ngi koy amal nekk na yoo xamante ni daanaka moom li li dara du ko wër danaan fang di fecc fecc moo xamante ni lu doy waar la te sax am na ci ñenn ñoo xamante ni ñu siiw la lool célèbre ci askanu sunu gaal bokkoon nañ ca ña nga xamante ni ñoom ñoo ko doon seetaan loolee di wane ak fësal ni Sénégal bu ñii dee tiit di jaaxle ndax li nga xam ni mooy mbas mi ña ca des sa nekk ci la leen neex ndax ka nekk ci li leen neex teewul en pleine couvre-feu ay doomu Sénégal ci jëmi boppam dem organiser li nga xam ni moo di seen soirée di ko amal te ñoom ñooñee nga xamante ñoo ko doon amal kenn ku ci ñokk ci ñooma doomi borom daraja nga ci mim réew te loolu yi lépp nga xamante ni moom moo am di nekk ci li leen neex ci jamonoy couvre-feu mën nañoo jàpp sax ni li ko waral du leen lu dul ñàkka tiit ñàkka respecté li nga xamante ni moom mooy luwa yi askan sunu gaal teg jëmale ko ci li nga xam ni mooy covid 19 bi lee man la ci jooji la jamono itam ka nga xamante ni moom moo di rangu moom itam ma ngay def contre attaque am li waral contre attaque boobu yi nga xamante ni moom rangu def na ko mooy gis gi nga xamante ni gis na ko Lirou Dior jëmi boppam ma ngay commencé am bës ci euh, compte Instagram ma moom itam mu ni man daal naa def rek kon nag ñun xamuñu ci man réew la ñu nekk tey itam bu ñu nekkee ci réew moo xamante ni ñii dañuy gas ñii di suul xawma fu ñu jëm ba tey ci ñi nga xamante ni ñooy suul li gaa ñi di gas ngir xeex Covid 19 bi mooy ñi nga xamante ni xëy na mun ñoo toog benn yoon ci seen biiri kër yi ay waay gaa ñi bu ngeen doon toog ci seen kër yi dara du ko dàq restez chez vous lañu wax ngir mucc ci li nga xamante ni mooy mbas mu bon mii di coronavirus bi te itam gis ngeen ni ka communautaire yi ci jëmi boppam kenn munta xam ka nga xamante ni moom moo ko wàlle ku ko am kon ngir mucc ci bañ cee am li nga xamante ni moom moo la ciy muccal nga bañ cee am du lenn lu dul la nga toog sa kër kon gars yi nga lawaay waay restez chez vous ngir li ma bëgg yow mi may déglu nga bëgg ko njiitum réew mi bëgg ko di mbas mi nga xamante ni moom moo tere ñu bare bare bari ci askan sunu gaal continuer way dem ci li nga xamante ni mooy ca la ñu daan yëngatu waaw am na ci ñoo xamante ni seen liggéey dafa taxaw ngir nag ñooñee ñëpp delluwaat ci la nga xam ne moo di seen i bërëbu liggéeyukaay di amal seen activité ni mu waree maanaam libr rek ci gàttal du leen lu dul mbas mii ne ci askan sunu gaal jóge fii ba faw kon gaay yi coronavirus ñoo ko man te mbooloo mooy doole lu kenn man ku nekk ñaara ko ko dàq bu nu booloo maase doon benn takku taxawal def li nga xamante ni mooy sàmmoon tekk li nu nguur gi diggal moom corona xamu man réew waaye ci biir réew di askanu sunu gaal dina fi jóg ci nu mu gën a gaawee ki nekkoon ci kàddu gi seen mbokk seen xarit fal dammeel di leen jox dig daje jàkkeen jëf